waaw Wally man bi may ñëw si moom boobu maa ngi PBS naa mm-hmm. ngi woon euh, di nuyu di jaawo di sax de passage yàgg naa ak moom ànd naa moom fu nekk si àdduna dëgg yàlla euh, Wally nag maa ko xam ci euh, bi muy def albumu folio juste laay ñëw Baba Amdi woo ma maa am luy benn. Mhm. woo ci évité ma ci benn morso bu ñuy wax cégin. Mhm. dama voilà damay defaral waa li benn morso doomu Thione Seck bi boobu miinante bu ma ñëwee def ci album boobu morso boobu. ci la yàlla dogal xamante am. benn ba loolu passé yàlla dogal après gisante waatuñ gisante waatuñ ba benn jour ñoom ñu soxla percussionniste moom mu ne man moom muy wër ma ànd ak mbay si ak lil pro dèjà di ma wër ba ñëw sama kër dama doon nga ñëw nekk si groupe nangam nangam ndax mu yema boole ko. Mm-hmm. ba ngay ñëw ci moom contrat ngeen signé woo cachet wala. non may ñëw ci moom nekkul woon contrat daf la ma dama bëgg ñu ànd liggéey ndax dama bëgg dama sentir nga nekk sama ginnaaw. Mm-hmm. te bëgg naa wax dëgg li ma yor xam naa ne yow mën nga maa gunge baat boobu moom la ma waxoon te baat boobu léegi mi ngi koy sàmm. Mm-hmm. ma koy sàmm. ndax li ma moom. man damay faral di ko wax sax parce que du xaalis du matériel du dara mais kóllëre la kóllëre moo ñu boole te kóllëre googu noonu yaakaar naa ni moo ëpp doole matériel yeeg lépp ñu gis ni Faramareen yaatu na bopp yaatu bu rëy ku nekk ak sa jikko nan nga gisee Faramareen lan relation nga am yeneen paawaal yeneen artistes yi fa nekk ñoo xam ne da bokk ñoom liggéey waaw mais xam nga kenn ku nekk ci ñun euh, lii sa yitte mooy affaire bi jëm ci kanam baax loolu la ñu loolu ñuy dund mm-hmm. donc bu nekkee ci kaw seen bi kenn ku nekk ak say yéene kenn ku nekk ak xam-xam bi nga am moom ngay indi mm-hmm. mu kole kii way mu dem mm-hmm. waaye daan may xorom si parce que man la ko yàlla def ah. maa ngi yor cas bi waale xam na loolu yow yor cas gi xam na cas gi ndax li tax ma yor cas gi mooy man bu yaa ngi may suivre suivre la moo tax tey ñu dalal la. waaw tey baax damay tëgg damay fecc. mais fecc bi kii lañ koy gisee ay ëmb di Badiane. waaw ay. Euh, ñoom ëmb di ak Arma lu ñu fecc dafay fekk man ma tëgg ko fecc ko ba noppi ñoom ñu doog ko fecc. waaw loolu moom déggati naa la. maa yor cas bi. waaw kon yow tey rek mënu fa jógee euh, balaa ñuy waxtaan bu bari ñu gis ni que waale instant yi dem na na États-Unis mhm. euh, def fa ay euh, son yu bari ku mel ni Chris Brown ak yeneen artistes mhm. nan la ko gisee. man di wax dëgg yàlla dama koy ñaanal yàlla di ko encourager parce que xam naa ni gis-gisam sori na te xam nga. musique Sénégal fii. dafa mu metti lu tax mu metti waaw bàyyi li tax mu metti bari na ndax bu fukk nangoo ñaar fukk bañ bu ñaar fukk nangoo ñeent fukk bañ par rapport geneen dëkk yi nga xamante ni artistes yi benn single leen yi génne rek doon lañu ñu war a doon ndax jàppalante hmm. bu ca war hmm. mais fii Sénégal waxal nit kii lu ñaaw lañ gën a mën ko jàppale moom nag am na gis-gis ah, yàlla ko suñu borom jàppale ci loolu nga xamante ni moom la gis ba war koo mën a def parce que ñoom noonu duñu ay nit ñu ndaw daal bu def ak ñoom dara xëy na mën na ko ubbil leneen lu bokkul ak lii mu ne ndax waali sax na wax dëgg yàlla Sénégal fii moom defe naa ne amatul lu fii privé nag def na lépp mhm. waaw mais nag commencé gul ci musique li ko dese bari mais ñu bari euh, euh, rafet nañ si li mu def parce que nit bu nekk rek war nga rëy bët surtout boo nekkee artiste mais ñu bari dañu dañu ne euh, dafa tontu dafa gis boppam si affaire ay code bi moo tax tey mu dem ba États-Unis dem mun a def ju ak Chris Brown ak keneen ak keneen. man gisuma ni sax dafa gis boppam ci li ko Akon wax mais damaa gis ni li ko Akon def wala mu wax ko ko man pour man da koo yokk jom ba tax mu defi li loolu man loolu laa gis parce que Wally c'est quelqu'un boo xam ne boroom jom la bëggul defar waaw loolu la ko suñu boroom moom loolu la ko suñu borom bindee man mës nañ toog maak moom ñuy enregistré benn studio mobile sound mu ne ma Cheikh sama papa maa koy defaral première partie mais sama première voyage ak waram daan Angleterre doon te moom day toog xaar ma te yàlla xam nga ni ba at ma dégg see noonu la demee maanaam nit ko am gëm-gëm la. Mm-hmm. soo xoolee euh, comme Akon moom même ni ñu ko mën a waxee Mor ay baayam. Mm-hmm. kon doomu réew mi la. même bu juddee sax fu mu mun a juddoo comprendre moog Waly la ñuy waxtaan xëy na ñoom ñaar ñoo ko xam nangu na ko ak nangu lu ko xam naa ni yokk na Waly jom ak lu mën a xew ndax moo tax mu dem defe ji la mu war a euh, si wàllum clinique bi parce que ñun Sénégal dafa am benn euh, culture bu ñu gëm te dafa am loo xam ne ñun euh, noonu xoolee affaire yi tey tey boo ko doon wax ci yenn clip yi wala yenn lii parce que da nga ne étranger di ne Sénégal te ba nga waxee wax nga sànq nga ne Sénégal euh, wax lañ gën a mën a jàppale la lan nga koy wax foofu. waaw mais xam nga tey nag wax dëgg yàlla bu fekkee musique ngay def même bu fekkee culture yi bokkul dëkk bu nekk ak la muy dund. Mm-hmm. mais musique moom. xanaa ku li xaalin japonais ak américain ku ne balaa engagé di nga ne une deux trois quatre ñoo ko bokk. ñii dañuy ak plaqué doo ñuy plaqué ree moom la def ñu comprendre nga ñoom musique bu nekk ak li mu laaj bu fekkee loolu la clip bi laaj ah da koy def. d'accord d'accord.